waaw man moo ma wutal moo ma wutal fi may liggéeyee. macha allah ma fay fayoo maanaam mbokk bu dimbali ay mbokkam boo ko bëggee gis jàppale tuuti. lekkul bàyyiwuñu xiifuñu ngir moom mooy suñu tiitar suñu bët bu xonkee ci moom la ñuy ñëw mu fajal ñu. wallaahi muy saxal ñu sàmba àllar de ko. moo tax ma ne mais mais mais en tant que nga gis ko muy lutteur. waaw nekk ci réew mi comme ay moromam. waaw mu boole ndeyam ak bàyyam yóbbu baytul haram loolu yéen ay mbokkam ban sax ngeen ci am loolu. mooy li ma la wax sax. moom dafa def loo xamante ni yàllaa ko njëkk a tàmpalee kasatu ko. jox yonent yàlla Mouhamed mu validé ko. fi mu ne nii lu mu dundatul. illaa yawmi diin yàlla dund cent lépp bénéfice lay doon ci moom parce que dafa teral ay waajuram te ku teral say waajur yàlla teral la. doonal ku la neex boo respecté wul say waajur yàlla respecté wu la bëgg la. waaye doonal ku la neex boo respecté say waajur yàlla may la àjjana. moom la ñu lii dana def moom booy ñax. jël yaayam jël papaam yóbbu màkk. ni leen kaay leen ziyaare ji Seydina Muhammad mi nga xam ne moo gën yaa bëri jom. ñëwal way wow ñëwal nii waaw. way wow dama ko way ne ko yaa bëri jom. bëri jomam nag fa tabaarakallaa réew mi xam nañ ko. Sénégal xam nañ ko. muy jàmbaar ci réew mi. di doon nit ku am personnalité. nit ku am fulla di sëtu Cheikh Yérim Ndoumban Seck. kii bu yoroon tey kurusam toog ñaan yàlla sunu borom def. ndeysaan bu bàyyi woon làmb ji kurusam toog ñaan yàlla suñu borom def bu bàyyi woon làmb ji toog di ñaanal yàlla ku mu ñaanal yàlla so so sa aajo faju ndax lan ah surtout wàlliw bu mag la <laughs> kii yaayam alaj sàmm ndukumaan ko jur alaj sàmm ndukumaan Cheikh Yirim ndumbaan ko jur muy taawu alaj sàmm ndukumaan moom maamam ñu ko fukki fan ak ñaar ñu sul ko mel ni tey Cheikh Saad bu ni ko say mbir jaaxal na ma وأمره من السماء قطب الربان صاحب السعي وقسله خزائن الأموال في جملة الليل والليام كيبو يريكو سنبنيا نصر برمنا أجل تعانى سك موك جر ألا تسامدكم أمشي خيرم ألا جدقون نقوم ميمو يبايم كي ألا جمالي ألا جمالي نقوم موك جر من نقل ممال نيوم لك نوم يربما تولني نوم مدارك làmmiñ nag bu waxul dëgg wax fen wallaay dëgg la ma yar ba ma toll nii fa tabarakallah macha allah heure bu ma ñëwee ci moom lu ma soxla ci moom mu yëkkati jox ma kan kii mënu ma koo fay bañ na ko ba ba ko ya bari jom way woo fu ne laa ko way muy jom ñu am jom ma dul bala koddu ah, may sa bala koddu bala koddu maanaam mbaay ay boy na yaa bari jom jërëma cambaay yaa bari jom جودة كلها خام خام كباخ كلها واي واي كباخ يا سواعد يا واي كمان سنبانا مدينة واي كل ساتون كل ساتون خير خلق العالي كوكو جرى وقتها خير خلق العالي يلا نكو يا يا بنيخ آه، خير خلق العالي فلولا نيخ اللي بيجوه لدرابو عجنا يا سيدنا محمد اللي بيجوه لشعبي عجنا يا سيدنا محمد قال لك ما قال لك جن الملائكه خير خلق العالمين سيدنا خير خلق العالمين انا اول الناس خلودا الى محمد خير خلق العالمين وقائدهم اذا وفدوا اعد يا رب خير خلق العالمين ويبشرهم اذا يئسوا سيدنا محمد قسم بنا خير خلق العالمين اكدر وقتاني سيدنا محمد ak a jar a bëgg Seydina Muhammad ak a jar a ziyaar Seydina Muhammad ñi ko ziyaar de xam nañ ni kenn du moom xayru xalxulaay ndax neewoon na sama minbar bii ak fii ñu ma tëddal xayru xalxulaay jardin la ci jardin àjjana yi xayru xalxulaay boo fa toogee lu mu néew néew di nga dajjal imaamul mursalina ñii de xam nañ xent nañ xetu àjjana imaamul mursalina ndax toog nañ ca jardin àjjana ya imaamul mursalina nee na daf faa daanu moom nee na daf faa daanu. sayyidina Muhammad ma bayna bayti wa minbari rawdatun min riyaadil janna. sayyidina Muhammad imaamul mursaliin. foofu bi ngeen ziyaare ji woon. sayyidina Muhammad imaamul mursaliin. doom ju baax ji jël billet ak devise jox leen. ay bala ko du ma ne maa yee bari jom. ni yaay jur ngeen ma fi ngeen ma war a juree màgg naa tekk naa kaa leen ziyaare ji yéen. yow sa waay bi ñu waay ko neen ci mbala ko doon.

yaa bari jóg yow sama Kurma. Görnalı. Görnalı.

سماي محمد عبد الله دمنا ما كدقنا لك سماي الشيخ بن مسك دمنا ما كدقنا لك سماي الشيخ عمر سك دمنا ما كدقنا لك بالله يسال كالك بابا تقول دلنتيك يا سمام لا نسول فكفرنا يا نسول كمل تيلا قرصا قبل كسان كالك بالله دلنتيك يلا نوازن في الناس بالحج بالحجياتك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق سيدنا محمد أكن يخون ندقلو ينتبه سيدنا محمد نيدا يو أم لسباسا أجلا سيدنا محمد بابا نقول أم لسباسا أجلا سيدنا محمد يا أنا أم لسباسا أجلا سيدنا محمد الحج مبرورا سيدنا محمد ليس له جزاء إلى الجنة سيدنا محمد بوينا يوم يخمن يا جلدي جوكو سيويدون سيدنا محمد دارا لوسين فايلوت الاجلة سيدنا محمد ني دم نان مكه سيدنا محمد دم نان مصطفى سيدنا محمد دم نان منى سيدنا محمد حاو نان عرفه سيدنا محمد دو نان صفاك مروه سيدنا محمد نان نان زمزم سيدنا محمد سكور نان زمزم سنت باغا مدينه ارملو نان لويخ سنت باغا مدينه يلا تيكل لن سنت باغا مدينه الحج مبرورا سنت باغا مدينه ليس له جزاء سيدنا محمد الى الجنه سنت باغا مدينه ولكن يسدبي jox leen. ay bala ko ma ne maa yee bari jom. yaay jur ngeen ma fi ngeen ma war a juree màgg naa tekk naa kaa leen ziara ji yaa oh. daf nga biir boo xamante ni. doo ko ko marqué yaa bari jom. maanaam yàlla may na la benn biir ana isa yaa bari biyu ta du bi bo xamanteni biu penalty la Alexandre ko non sama am ya bari do manam da nga def action da nga def action du du ta du du ta yalla may la ko dugal bi bi yow sama am la sul fuk fere ñaar ya bari do billahi nga xamne ku taral sa bay taral sa ya yalla dina la taal ay sa ya bari do wal baladu tayyib yukhruj nabatahu bi izni rabbih ay man sakhari masan do ya bari do wal ladhi khabasa la yakhruj illa nakida man sakhari masan do ya bari do ku taral sa bay taral sa ya يا عن يا سماوات يا يا أولى يا أي مليار

Cheikh Aya mooy maamu Cheikh Abdoul Aziz mooy maamu Cheikh Saad mooy maamu Soxna mooy maamu Nafisa moom la ñu suul incha من وجه دريحي في بيتك الحرام تقضى بها حاجة سائر لنا فقد فرسلنا مدير أنا مدير أنا جعلها إمام رسي الكرام مدير أنا فيا بايدقول جعلها إمام رسي الكرام وأنت شيخ فارق أسنك جعلها boo ñëwaat jëlaat yaayam ak papam jaala imam rusiyal kiram kale ziyaar ju leen ci imam rusiyal kiram maa ko jaala imam rusiyal kiram xanaa xamoo ne imam rusiyal kiram